asalaamaaleykum mbokk ak xarit yi comme ni ma ko tàmmee di leen wanal ci seen émission togg wala lifestyle tey li ngeen indil encore tey dafa simple loo xamante ne ku ne mën nga koo defar lu ma di wax à chaque fois du ñuy defar mën nga ko am ci marché mën nga ko am ci supermarché tey li ma leen indi dafa spécial hot dogs laa leen indil boo leen ko xoolee préparation bi yàggul euh, yomb na góor mën na ko defar jigéen mën na ko defar surtout célibataire yoo xamante ne euh, amuñu temps pour togg nga ñu sans plus tarder ñu ñu wan leen nu ñu koy defaree. léegi li saucisse la mooy élément yoo xamante ne moo war a dem ci hot dog bi euh, moo nekk ni saucisse cornichon lii soble soble la fii dañ koy wooyee soble bu wow la boo xamante ne dañ ko mariner defar ko moom ñu ngi koy wooyee boo ko xoolee ci hot dogs yi da nga koy gis si biir moom moo fa nekk condition yi moo nekk ci côté bi léegi lii mburu euh, hot bi la ñu am pour sauce yi fa war a dem euh, ketchup ak euh, moutarde donc sans plus tarder ñu commencé ko dañuy jël hot dogs yi dugal leen fii parce que comme ko togg nañ leen ba pare léegi ñu def simplement que pour tàngal ko voilà moom ñu teg ko nii léegi dañuy jël suñu ndox boo xam te dañ koy tàngal ñu sotti ko ci nga xam ne taf taf lay def rek mu mën pare voilà suñu ndox mi baax na léegi dañ koy jël ñu sotti ko ci nii pour tanga ko le rek soxlo sa affaire yi bari avant il dure 5 minutes wala 2 à 3 minutes yoyu légui suñ cornichon bañ koy tracer mom liñ ci soxlo sax bari wu voilà lii mon na doy donc euh, pour deux personnes là wala mu tay euh ñu teg ñaari pain yi parce que dañu am gan spécial bo xam ci mujjantal bi naa la ko présenté tey moo ñëw pour mën assister ci suñu émission te muy Atoua ñen xam ko plus particulièrement sama caméraman bi. léegi duñ def lenn lu dul ñu récupéré indox euh, yi loo woon ko tuuti rek ñu départé ñu woon leen ñu tànn jël legi ñu jublu ci bi voilà comme que nit lañu def benn plat tamit léegi lu def mooy dañuy jël kii bi euh, cornichon yi nii jël saucisse teg ko ci digg jël euh, subar bi ñu leen doon wax mooy ros bi def ko nii jël suñu ketchup sotti ko ci kawam del suive tuuti mu taal sotte ko ci voilà moom ñu teg ko nii ba mooy suñu première deuxième bi su la neexee da def soos yi à côté nga xam ne moom nii rek nga koy def ça dépend ku ne noo ko bëggee rek nga jël euh, condition yi tegaat su la neexee nag nga jël ñaar pour mu gën a mën a fees Voilà, t er v e l o m n Gjør rossi godt med s v r t e kokkene. voilà, your can source me. Et tout le monde a. Voilà. C'est une deuxième bague. kon ngeen gis ne dafa di boo xam te ne euh, yomb na gaaw na euh, taf-taf boo boo xiifee rek xam nga ni lii boo ko amee guddi euh, mbaa nga xiif ci suba si yeewu ndekki bëggalu saf comme mbokk yi ak xarit yi kon mu ngeen ko gisee tey lii lañ leen indiloon tey muy seen plat du jour te plat boo xam ne lu gaaw la neex na te defit loo xam te ne euh, boo xoolee bu baax euh, lu lu lu gaaw a defar lu ñu gaaw lu ñu gaaw a defar la comme ni ma leen ko doon waxee ci de début man leen dañu am gan spécial boo xam ne maa ko invité tey ci sama euh, vidéo bi ne ko kaay nga nga bokk ci nga participer si mu ne ma defal ma hot dog donc hot dog la ñu am tey ci suñu plat du jour bu ko defaree mooy dañuy am pain jël saucisse boole ko ci ak cornichon yi ak ñaari sauce yoo xam te ne spéciale te muy moutarde ak ketchup ñu am rossible rossible mooy benn genre euh, soble la soble la boo xam te ne dañ ko asséché def ci ay condiment moom lañ ko defaree donc ñu xam ne kon gaawal même pas à l'écart de minutes nga pare ko même sa motul sax 10 minutes sax ay 5 minutes à 5 à 10 minutes donc euh, sans plus tarder dañu présenter leen suñu invité Ato Moukré comme ruban comme ni ma la koy présenté à chaque fois boo leen de suñu émission yi euh, bu ñuy faral yi ñuy faral def kii mooy sama caméraman mais émission yi may def fii man maa ko def mais tey dama ko invité spécialement ki mooy Atou moo ko def mooy defar suñu émission yi ñuy faral def Bremen euh, mun naa ne euh, Hamburg Überall partout fii ci Allemagne moom moo koy présenté moom mooy suñu caméraman donc tey moom la invité mu ñëw ci sama petit plat yi may faral di defar te lii la taamu hot dogs la taamu donc Atou Dankeschön merci beaucoup und à la prochaine sa plat ngi merci beaucoup. a la próxima. <laughs> chao, chao.